naka mu. yaa am jàmm. sant baax baax. tey da ngaa ñëw ngir remplir sa contrat sa diggante ak Sokh. waaw waaw loolu laa ñëw pour def fi. Mm. lan moo tax suwaaw Sokh. non. dara mbër la bu ñëw dañoo war a bëri rek. Mm. Mm. ñëpp dañ doon waxtaan ci làmb Franc ak Lac de Guiers 2 ak Lac de Guiers mu mel ni ñu jékki-jékki rek gis Franc ak Sokh taxaw na da nga nekk adversaire wala Sokh moo la ñeme wala lan moo tax nga dugg ci Sokh. waaw xam man xale laa damaa toll ci bëri. mënuma fi toog di xaar. koo xam ne nee na soxlawu ma bëggu comme damay dem xooy leneen rek nee na ma liggéey ba ci kanam dinaa liggéey. waaw maa ngi liggéey maa ngi ci yoon maa ngi liggéey amul problème. Hmm. Mhm. soo ko ne li ñuy wax ci yow nekkul ci yow parce que moom dafa gis ni gars yi dañ la bëgg a teg foo xamante ni yeggoo fa ci làmp te moom dafa la bëgg a lan nga fas yéene def ak moom. waaw avant tout yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ba pare rek buñ ci yàlla yóbbee jàmm après affaire yi leer quoi affaire yi du wax moom hmm. xam nga làmb benn jour la da ngay ñëw def li ngay def def fu la fayda dem sa yoon yàlla may ñu ndam ci kawam loolu ñuy ñaan quoi. bi ñuy négocier combat bi métti woon na wala baata ak tontu la. waaw ah, làmb moom xam nga nu muy demee moom. yaa ma gën a xam quoi. ñu ngi merci. ñu lay xaar ci jaajëf.